dañoo daje fii fii ñu tuddee permanence opposition ñu daje fi ñun waa PDS di ŋàññi ñëw bi nga xam ne Macky Sall le président Macky Sall dafay ñëw tuddee ko li ñuy wax tournée économique te xam ne tournée boobu dara lalu ko lu dul politique politique bu xóot moo ko lal ndaxte ki nga xamee ne nii ba muy campagne 2012 la ñëw kat digle na la marché bi nga xamee ne nii mooy marché Kaolack dinaa ko def marché bu mucc ayib gisuñ ci dara mu ne ñu poor bi nga xamee ne nii pooru Kaolack la dinaa ko wàqiwaat ba bateau yu mag yi di fi ñëw économie bi mën a dox gisuñ ci dara mu ne ñu la grande mosquée bi nga xamee ne bu julli jumaa jotee képp ku nekk Kaolack incha allah genn wàll gi yëpp nekk centre ville fa la ñuy jullee ji jumaa jooju ku nekk xam ne ne bañ ko tëyeeg léegi ëpp na ñetti at mu ne ñu dinaa leen ko defaral ba léegi gisuñu dara ba julli bu jotee fi ne nii. ñëpp si ay ruq ak i ruqaan la ñuy jullee mu ne ñu dinaa fi def université cheikh al islam Kaolack waa yëpp kontaan si loolu ñëw teeru ko teeru bu mucc ayib ba léegi université boobu étudiants yi fa a jàngee ku nekk gis na leen si ay kër yu xat la ñuy jàngee te njàngum Sénégal yaakaar naa mérito wuñ lu mel noonu. mu ne ñu am na ay chantier yoo xamee ne nii dinañ ko fi def ñu tuddee ay chantier hydraulique maanaam lu mel ne ay canal ak loo xamee ne ndoxu taw mi bu ñëwee dinañ ko mën a yóbboog ak assainissement beeg yooyu ba ci ministre am bi nga xam ne mooy Serigne Mbaye Thiam yor wàllu googu ñëw fii si Kaolack waay si waa xaaxul suñu mbokk yooyu nga xam ne bu ndox mi wàccee jafe-jafe yu métti la ñuy nekkee seen bagage lépp di yàq mu ne leen incha allah bu mois de juin jotee dinaa eggale liggéey ba loolu ngeen fàtte ko waaye tey ku gis ñoo ngi si mois de juin te yaakaar naa ku fa dem xam ne chantier yi doxul benn pa léegi nag ki nga xamee ne nii lu tolloo fukki at dafa lay nax di la dig du ko def kooku ndax su la waxee ñetti at moo ko dese mu ne la dinaa la defal ak laa yaakaar naa waroo ko gëm te moo tax ñun gëmuñu ko waaye loolu tamit li ko firndeel mooy que xam nañ ne ñii ko fi nekkal yoral ko mairie bi yoral ko conseil départemental maanaam mënuñu bawuñu te ku mënul bawul lu yàqu yawa looloo tax waa Kaolack kat dañoo génne seen bopp ci Macky Sall ak ñi ànd ak moom tàllal seen loxo ak seen i gët ak seen xol tàllal ko ñi nga xam ne ñooy opposition muy waa PDS ba tax ne ñun ñu ko fii. di ko wax ne tey su d'accord eh, chantier yi nga xam ne mënu kaa eggale doxul benn yoon ñun suñu ko nangoo jox autorisation kii de nga xam ne mooy suñ candidat nekk candidat bu xel yëpp yaakaar ndax liggéey bu mucc ay bi mu fi defoon muy Karim sa Wade incha allah fas yéene nañ eggale chantier yooyu noonu wëlbati ko jox ko ne ko dugal ko sa bilan ndax rek génnee Kaolack waaye si jafe-jafe yi ñu nekk ñun nag waa Kaolack ñoo ngi leen di o di leen wax ne balaa moo yàgg tuuti ñun ñu nekk ci wujje gi yëpp dinañ dagale suñu doole. wàcc si Kaolack bañ xam ne wàcc nañ Kaolack ñu ànd ngir nanguwaat mairie bi ci loxo yi tilim yi mu nekk te ko ci loxo yi gën a set muy loxo les libéraux muy loxo yi nga xamee ne nii mooy loxo espoir loxo ñi nga xam ne am nañ yaakaar ci ñoom te mën nañ xam nañ xam nañ fi ñuy utee am nañ mooy ànd koog suñu candidat muy Karim Meïssa